waaw comme li ma wax rek peut-être président Sonko le premier ministre président parti euh, passif peut-être looloo tax ñuy tàmm président bi mais président parti passif mais nag bu dee ci mbiru euh, administration premier ministre sunu président réew mi mooy Diomaye Diakhar Faye peut-être euh, sénégalais yi li ñuy wax ne ne wax gi dafa bari mais aussi tamit dama jàpp ne ne dafa am lu ñu sas dañ ñoo sas pour ñu defal réew mi ci sas boobu nag tamit moom it am kàddu wala gis taxawaay boo xam ne ni gis na ñu ngi ko koy piqué gis nga dégg naa sànq peut-être wala gis naa yenn euh, ki journal yi comme Tribune ma gis ñu kii ci jo euh, ci euh, kii waa ci Ousmane Sonko ba kii génn Bougane Gueye Dany mais in firo nga ne du ma dëmm dara xewagul daf la piqué bokkoo ci wala defoo ci jarul génn ku mu wax am nga droit nag kenn waxul man li ma gëm parce que nag li may gëm it ak li tax may jàppale sonk du tax ma wax lu ma gëmut wala ma def lu ma gëmut parce que Sonko ni mu gëmee boppam gëm yàlla noonu la gëmee sama bopp gëm yàlla lépp lu may wax damay wax sama akulaay taala dafa génn parce que dañoo gis ne ne bi mu gouverner bi ñu gouverner ba léegi bëri na loo xam ne ne ci ñaari weer am na fi te loo xam ne ne Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët loo xam ne ne de lu bëri daanu leer transparence amu doon mais léegi ñu ngi gis transparence mu ngi am lépp lu xew lépp lu gouvernement def ñu ngi koy wane ñu ngi koy bind ñu ngi koy def ñëpp ngeen koy gis kon loolu tamit war nañ ci di ci wax mais dañuy gis na ne au lieu ñuy wax ci loolu mais am na ci ñoo xam ne ne ñu ngi seet nan la ñuy fexe ba déstabiliser ci xelu nit ñi parce que am na ñoo xam ne ne euh, seen taxawaay ñoom li nekk fii mooy li président Diomaye jiite ak le premier ministre nekk ci boppu réew mi neexu leen xam nga comme ku sa gémmiñ di nàcc doo wax jàmm ñoom li ñu bëggoon ak li yàlla def ça fait deux léegi nag day am benn moment boog ñu téye kii bi nag bal bi wax ak ñoom parce que dama gis na ne ñoom ñu ngi def lu am importance ci réew mi ci pêche bi yéen ko gisandoo licence de pêche kenn mosut xam ñaata licence moo am Sénégal mais au moins bii leer na wax ne ñii ñoo am licence sénégalais yi temps la 137 ñee 19. ñu ngi seetaat yeneen licence pour jox ko xam nga loolu lu leer na te loolu mosul am ah bon ba boo man xaw ma ci dara mosuma ko gis wala mosuma ko génn. Mm-hmm. bu dee yéen xam ngeen ci ndax daal nañ ko di génnee tamit ngeen wax ñu. Mm-hmm. comme yéen journaliste ngeen peut-être am nañ ci ñu ci yàgg. kon léegi tamit ngeen wax ñu. Mm-hmm. ñu gisaat ci euh, det bi nga xam ne ne amaloon nañ ko sunu mbokk paysans yi. loo xam ne ne ay nit a ko lekk wala ay nit lañ ko joxoon ñu jaarale wuñ ko yoon. ñoom ñu ñëw presque boru benn at euh, nu mu deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt trois fay ko plus de trente sept milliards yokkaat ci ba presque quarante euh, quarante et un milliards mais fexe nañ ba éponger dette boobu ci loo xam ne na ñeneen ñoo ko lekk mais ñoom fexe nañ ba ñëw fay ko xam nga loolu kon plus la ci koo xam ne dañ leen jox motagul ñaari weer ci la loolu am. ñu bëri yoo xam ne ne gis nañ ko fi te amutoon tuñ mu am kon transparence boobu rek ñëpp dañ ko waroon saluer di ci wax. justement nit ñi saluer nañ ko. léegi